extra cost. Keep using the same AfriCell number and your Colorado credit will grow every year. AfriCell Colorado credit only on your AfriCell line. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen a fii si GRTS ñëwaat nañ tey pour indi leen seen programme yi nga xam ne moom lañ leen jagleel si weeri koor bi tey nag euh, balaa maa sori man la Fatou Sané Cissé di leen wax Ramadan Mubarak tey nag suma gan bi mooy suma special guest mooy honorable Mass Aske Gueye minister of fisheries and water resources ba tey maa ngi expect euh, oustaz Ousmane Dia. nga xam ne xamee ràññee nañ ko fii si GRTS de waxtaan mbiri diine moom lañ am tey te tey nag suñu waxtaan bi mu ngay jëm si mbiri euh, warugali waajur si nu moo yaree doomam responsibility Euh, parents yi maanaam ay guidance yi ñoo xam ne ñoo yore xaleel ak euh, kilifa yi naka lañ waree yare xale yi si mbiri diine bi tey nag loolu la ñoo waxtaanee si suñ programme ndogu euh, te suñ skype koola bi ki ñoo call tey mooy Moho ñun ñëpp xam nañ ko si musique bi waaye tey nag ñu ngi ko koolee ba Birmingham Moho di ñu ko xamee si Mouhamed Ka moom la ñoo waxtaanal tey balaa ñoo sori nag maa ngi gërëm Africell ñoom ñooy suñu official sponsor bi ñu ngi leen a wax jaaraama euh, Africell ba tey ñu ngi gërëm euh, démbu spring rolls maanaam euh, ndogu bu ñu dee indil fii ñu ngi koo gërëm di ko santa di mun ngeen koo am si 779 6356 779 6356 démbu spring rolls sa kóolóoli ba tey nag ñu ci gaay unique solution pour ñi nga xamne ñoo dé faciliter sun Skype call bi RLG ñu ngi leen a wax jërëjëf ci seen jappalé bi ci sun programme ndogu comme nu ma leen ko wayé tay suma gan bi moy honorable minister mas Aski gay minister of fisheries and water resources welcome. jërëjëf. Mhm. Fatou waaw tey nag euh, bala oustaz bi di ñëw bëgg ñu waxtaan ci mbiri euh, responsibility wajur, si nu moo euh, yare halal. warugali waajur li mu war a def. jërëjëf. Mhm, euh, parce que xam naa ne yow papa nga you are father you are everything so foog naa ne daal mun nga say saani tuuti. jërëjëf Fatou mhm. foog naa ne kontaan naa pour oote bi ngeen def nii. Mhm. ndax ñun si wàlla wiñ doon. muy suñu wàlli liggéey e, dañ nekk ca kaw ndax su fekkee da ma ooyee cabinet ministre. dafa mel ni ñu ngi si kaw di seet ñi si suuf. Mm-hmm. te seet ñi si suuf. Mm-hmm. njaboot gi tam ci lañ bokka mm-hmm. surtout ñun suñ njaboot yi nga xam ne ñoo ñoom a dëkka. E, yaakaar naa ne si jamono biñ nekk nii. E, comme man bàyyi laa te kilifa laa. nekk borom kër. du wax ne yomba na pour ni ñoo war a dundee ak ni ñoo war a doxalee ak suñu njaboot ci kër gi. parce que euh, ñun suñ seetee suñ bopp fi ñu jógee. Mhm. naka lañ dundee si kër as ñu yar ñu. naka lañ dundee ak ñun si suñu kilifa yi bañ ñoo yar. Mhm. dundin boobu dafa uute ak dundini jamono ji mhm. ci yarin. bu baax a baax. ndax li ko waral mooy eh, jëlee naa ci suñu waxtaan démba rek ak président Jammeh. si wax yar. waaw parce que su fekkee dañ ne di child's right. Mm-hmm. waaye waxuñ di parents right. Mm-hmm. loolu xam nga nit mënu ko boole ñaar ñooñu ñu bokka ñu ne xale bi am na droit am ci lii ci lii ci lii. Mm-hmm. waaye fa lañ utal ko defal ko luwa en naa ko def ko loo propagate ko àddina si yëpp di ko doxal mm-hmm. waaye léegi lan moom mooy taxawaay waajur yi ca foofa mm-hmm. xam nga foofu problème am na mm-hmm. loolu yu ñoo indil la si suñ jamono ñun indil ñu ko ñun te loolu nekkut suñ aada nekkut suñ cosaan nekkut ni ñoo yaree ndax ñun ni ñoo yaree ñun nit ku ñuul dafa uute ak soo demee ci réewi tubaab ni ñoo yaree mm-hmm. challenge sa parents mm-hmm. am doole ci sa wax sa diggante sa parents mm-hmm. ñun du woon si ñun ñun ba ñoo yaru nekk xaleel doo toog fu mag toog doo waxa a mag te mag waxut ak yow te terewut soo defee loo xam ne waruloo koo def dinañ digaale yow. Mhm. waaye su fekkee nag dañ ñëw si jamono boo xam ne ñun dañ toolu foo xam ne comme Europe xale yi ñu leen joxal nine xaw ma nine one one. ñu téye soo leen ne xuux ñu téléphone. police ñu ñëw boole ñu jàppande wala ñu jàpp bàyyi. xam nga foofu waaw wala ñu ne yow sax yow mënuloo yar soo jëlee sax yar dóor sa xale si taatam nii rek. spanko rek su li fi ne ñu ne yow danga nga molest da nga ko molest ak da nga da nga ko abuse ak loolu naka la mun a amee su fekkee nag loolu dafa dunda ba ñëw ñu dugal ñu ko ñun si eh, suñ si suñ dunda ñun mhm. nit ku ñuul mhm. am nañ problème te suñ génnee ci loolu rek mhm. yi nga xam ne moom moom la nit ñi saaloo léegi pour dundee ko ci biir kër yi ak xale yi lolu benen problème lañ nañ ci wax. ok wa fum nekkani na doguma la waaye dinañ dem ak short break suñu oustaz buñ invite mu ngi fi waaye bala bobu nag ñu dem ak short break fum nekkani suma directeur bi. الله هو الرحمن الله هو المنان لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the message

sister tey ah, lan nga nekk di tooga marine laa nekk di tooga <laughs> marine soosi marine ak lan soosi marine benn cin mooy alafin bi reer bi waa ok ci weeri lañ nekk yow naka nga gisee ñoo xam ne dañoo toogal lu bari tooga soosi marine tooga benn cin tooga lii tooga léeg-léeg te duñ ko mun a jeexal at the end ñu mun a def mooy jël ko tuut ko waaw yow loo wasi loolu nag loolu nag ah, baaxut loo xamante ne mënuloo koo jeexal jeexal waruloo koo tooga daal loo mën a jeexare loolu nga الله هو الرحمن الله هو المنان لا إله إلا الله محمد salaamualeykum mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaat fii si GRTS si suñ programme yi ndogu comme lu ma leen ko waxee maa ngi doon expert suma gan bi di oustaz Ousmane Dia ñëw na Ousmane oustaz. yaa soxna Fatou ñu ngi leen di nuyu di leen ziare mm-hmm. di nuyu itam honorable gay miñ fi fekk. Mm-hmm. ak mboolem ñu nekk waaw fu mu nekk nii nag comme lu ma leen ko waxee tey suñ programme bi ñu ngi euh, jublu si mbiri discipline ak ni nag lan la islam wax si ni ñoo yaree xaleel so fu mu nekk nii nag dinaa bàyyi